amaat lii di kontaante ak mbégte bu baax ni ma ko faral di def ak kilifa yëpp tey ma fas yéene dalaat beneen kilifa di kàngam nga xam ne nag kenn du ko présenté ti fii ci biir réew mi kooku mooy Serigne Cissé di marabu Mandeng nee naa leen kooku nag euh, xam nañ ko bu baax na clients yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi seetee lii di mëninam tey ma fas yéene waxtaan ci moom ponk yoo xam ne jëm na ci paj li nga xam ne mu ngi ci biir ñu tawat yi dinañ jëm ci ñaan bi nga xam ñaa ngi koy ñaan lu ngir tawat yi am loo xam ne ko am bu taw féexee Serigne Cissé ma bëlee nga nuyoo mbokk askan bi Ah, bismillah salaatu wasalaamu ala ashraf almursalin allahuma salli ala sayidina muhammad alfatih mina nasrah bilxalf wasalaatu mustaqim wa ala alihi xab azim ah, mbokk julli ñi maa ngi nuyu baax a baax di leen sant leen gërëm bu baax ba incha allah seen mbokk mi sëñ Cissé muy Maraw Manding mi ngi nuyu taalib yëpp ñu muy ñaanal yëpp ah, yàlla defal ñëpp jàmm incha allah ñëpp ñu am yaakaar ci moom di nuyu sama mbokk mandeng mbadi mandingkol mbal be kontona badi ma abal kontona fanfa inchallah min kabo sénégal kata gambia casamance guinée bissau ɓe baɗum be kontona bantala bankoɓe fanna fanna min ɓe amen ka fon ko ɓe kontona fanfa inchallah mais min ka jiko sona fannala Euh, mbi duwaa kele mbi baadiŋ bee kontine incha allah kon nu ma ko waxee euh, site bi comme niñ koy def ak say naataango acca fi may njëkkee nag balaa ngaa tal dara liñ naan ñu faj aajo yi ñu faj lii di tawat yi ndax euh, feebar yi léegi dañuy seetlu ne dafa bëri ci nit ki du ma ne feebar yi nag dama ciy jël lu ci mel ni hémorroïde dinañ ci jël lii di impuissance sexuelle mu dee mm. faible faiblesse sexuelle ci jël loo xamante ñi nga xam ne dañuy tuur ndox te mu doon feebar ci ñoom dinañ ci jël lu mel ni kort waaye yooyu yëpp dañ ci yaatal ñu ñëw ci par benn hémorroïde mën nga ci jëflanteeg jaamu yàlla yi. waaw alhamdulilah rabbil alamin comme ni nga ko waxee wàllu fànn googu ci wàllu wër-gu-yaram euh, bëri ñi nga xam dañ may soxla ci fànn googu ci wàllu hémorroïde euh, jamono gi dafa bari torop ci doomi aadama yi. mooy mm-hmm. hémorroïde. Euh, loolu lu koy andi ci wàllu ñam yi dina koy andi ñam yi nga xamante ne moo wàllu ceeb ak leneen leneen. dina andi hémorroïde te hémorroïde tamit lu muy def nit ki dafay daf lay seeraloo tamit euh, léeg-léeg hémorroïde mun a dem ba jàpp sa nguura muy hémorroïde euh, loolu yëpp daal euh, bu fekkente ne mu ci yow daal na nga def lépp daal faj ko incha allah. Mhm. itamit na nga moytu ci wàn wàllu yenn ñam yi mhm. parce que yenn ñam yi daal boo ko du moytu mun na la andil feebar yoo xamante ne doo ko xam mhm. hémorroïde fa lay soxee ko incha allah am na ñoo xam ne seen wayjur bu amee hémorroïde ñoom it seen wàllu der ak seen wàllu deret bu fekkee ni ñuy lekk yenn lekk yi mun na la andi hémorroïde tamit moo tax loolu daal bu fekkente ne yow am nga kii ci yow muy say seere mu ngay seere léeg-léeg bu bëri bëri mhm. euh, fexeel nga def ci ñaan boo xamante ne ci wàllu euh, mbir yoo xamante naa ci dafay ñaan incha allah ci am na sungu yoo xam ma la ko jox incha allah ci kattan borom toog ak taala yàlla mën na la dimbale ba loolu nekk ci yow muy émorite mu bàyyi incha allah mhm. lii di impuissance sexuelle ñen ñi sax euh, ba ci néew kattan dingu la seetlu nañu léegi dafa bëri rawatina waaw impuissance sexuelle comme ni nga ko waxee bëri na jamono yi ci ndaw yi trop trop incha allah amoon na jamono bëriwuloon mais fu mu toll nii bëri na bëri na ñi nga dañu ma koy diis ci fànn googu mooy impuissance euh, mooy ci xale yi tamit euh, léeg-léeg daal mag yi tamit mais bëri ci xale yi trop fu mu toll léeg-léeg ngis euh, xam te ne damay diis loo amul jabar amul soxna mais dama koy diis naan dama am impuissance sexuelle loolu lépp lu koy andi di fooye sa bopp. léeg-léeg euh, aussi ñam itam dina koy def euh, ci ñam yi dina koy def mooy impuissance sexuelle yoo xamante ne baaxul mooy bouillon yi tamit baaxul ci fànn googu am na yoo xamante ne tamit ci wàllu fooye sa bopp tamit wala xale yi nga xam ne ci wàllu jamono internet yi ñuy xool toujours nekk ci di fooye seen bopp loolu dina koy andi mhm. mais loolu daal incha allah ci kattan borom tabarak taala am na lu ma ci yàlla suñu borom may daal incha allah fekkee ne borom a yegsi allah mhm. bu fekkee ne amaa mun naa ci dara daal incha allah dinañ jëflante bu soobee borom incha allah mhm. ñuy tuur ndox bëgg koo bàyyi te doon magi jëmm nag comme ni nga ko waxee ñuy tuur ndox tamit bëri na jamono gi léeg-léeg nga gis koo xamante ne loolu moo koy tere sëy mm-hmm. tuur ndox muy jigéen muy góor mm-hmm. Mm-hmm. da ngeen di toll ci yenn âge di tuur ndox loolu rab dina koy def même aussi léeg benn feebar boo xam ne bu nekkee ci yow tamit mun na ko def si wàllu biir nàq bi mais loo fekkee ne aussi wàllu rab la wala leneen loo xamante ne daal leneen laa xam mun naa ci daal incha allah bu fekkee ne listaar naa ko xool naa ko maa xam ne wàllu rab la wala seytaan loo xam ne moo la koy def loo kooku dinaa ci dafay ñaan yu am solo incha allah boo yàlla def euh, nga bàyyi loolu daal mooy wàllu tuur ndox ci laal ci ci lal daal dégg nga loolu mun na tere nit ci am soxna wala moo tukki mhm. wala tukki léeg-léeg buy tukki si foog mu waajaat ko Mm-hmm. parce que fu muy dem euh, bu demee mun na tuur ndox te loolu gàcce lay doon ci moom mm-hmm. moo tax daal loolu daal fekkee ne mu ngi ci yow na ci def ñaan boo xamante ne gis nga ko xam ne mun na ci def ñaan daal mu dimbale ci incha allah mm-hmm. Euh, faru rab ak coru euh, nga xam ne ñu bëri dañ koy waxtaane lan nga ci mën a wax waaw ci faru rab mooy coru rab tamit loolu macha allah bëri na jamono gi torop torop ci doomi aadama yi léeg-léeg ci jigéen mun na ko tere sëy ku góor itam mun na ko tere sëy léeg jigéen da ngay dem mu am yaakaar yu am solo nga waxtaan a nit sa euh, góor koo xam ne daa mu doole am benn problème mais ngis mu jox la ginnaaw après mun na dem ba jàpp bës ci wàllu sëy pour euh, def la soxna mi après dafay delluwaat gannaaw loolu rab dina koy def ci nit ki même jigéen ñi moo tax damay naan jigéen ñu muur seen bopp ak aussi seen euh, wax nekk toujours nekk ci kaw di féete ci kaw jigéen baatam dafa war a suufee ci suuf. ak aussi mu muy muur yaram bi tamit ak euh, seen bopp bi tamit mhm. euh, moo tax rab lu doy waar la mun na yàqal jigéen lu bëri bëri léeg jigéen dina dem boo nekk ci yenn âge yi mhm. euh, yor lu jeex yor boppam mais pour mu am borom kër dafay am jafe-jafe trop ci loolu même ci góor dina nekk ci góor wala nga takk soxna balaa ñu naan ñaari weer ñetti weer mu yàqu tas tas loolu rab dina koy def moo tax rab lu muy def ci nit ki bëri na mhm. yàq-yàq muy def ci nit ki bëri na mais ci kattanu borom bi tabaraka taala kooku am nay mbir yoo xamante daal mhm. incha allah dinaa ci def ñaari am solo incha allah ci fànn daal incha allah mhm. bu leen fàtte nag euh, sëñ Cissé di maara bo man rek moom lañ dalal euh, muy yaatal boo ak léegi numéro mu ngi di daw ci suufu barre d'écran bi mën ngaa jël ba léegi 77 la 048 10 93 ma baamtuwaat ko 77 048 10 93 di nga ko fekk ci suufu barre d'écran bi aja lii di korte ak cat lan loolu moom macha allah fànn googu ci wàllu cat euh, dinaa ci def ay ñaan am solo incha allah wala cat parce que cat lu mu yàqal nit bëri na. Mhm. cat ci sa wàllu jëngu yow ci la la mën a yàqal même aussi nekk si wàllu sa liggéey. Mhm. yàlla dimbale ci ngay dem ci kaw ci kanam. ay cat ñëw yàqal la làmmeñ yàqal la làmmeñ ak bët euh, lu mu yàq ci doomi aadama bëri na mais léegi nit ñu bëri bëri nañu sàggane loolu. da ngay nekk si même jigéen euh, ngay wone sa bopp toujours cat mun na la dugg ba yàqal la léegi jigéen boo xam te nekk ci euh, wàllu liggéey bu baax euh, yàlla may ko taar macha allah mais cat nit di ko catu boo moo yàqal ko lu bëree bëri ba àddina mi yàqu même góor dina ko yàqal sa wàllu liggéeykaay nga nekk sa wàllu liggéeykaay yàlla sutural la u ubbeeku am ci. Mm-hmm. mais cat ñëw dugg ci boo yàqal la lu mais loolu yëpp da ciy def kaarange sa wàllu yaram. Mm-hmm. def ci kaarange loo xamante ni wàllu cat wala leneen lu bon. muy mm-hmm. wàllu safaan mu war a ñëw ci yow <clears throat> moo yàlla gàllankoor ko daal dégg mboj a ñëw ci yow même ci wàllu sa wàllu kër sa mun nga am sa kër gu baax mm-hmm. catu boo loolu tamit doo ci mën a dugg saa boo fa duggee rek am gàllankoor mm-hmm. loolu yëpp cati na koy cat lu muy def daal euh, bëri na trop macha allah sa oto mun nga am sa oto ñu cat catul la boo de da nga taxu sa mën nga gaare fenn keneen ñëw jóge fale ñëw mbëkk ko loolu cat dina koy def mm-hmm. uh, moo tax doomi aadama daal na nga musu sa bopp daal incha allah mm-hmm. lu jëmee ci wàllu cat daal wàllu kaarange yàlla musal ci lu baax ba incha allah rabbi mm-hmm. Hmm, wàllu kortu tamit comme ni nga koy kortu macha allah eh, jamono gi dafa bëri ñoo xamante ne defante lu bon dafa bëri trop fu mu mm-hmm. mais nit ki defal kaara nga sa bopp nit ki boo bàyyee sa bopp rek keneen mun na jóge fële nga naan du ma def kenn dara. Mm-hmm. mais nga nekk sa wallu yoon kenn ñëw kortu la ba yàqal la. Mm-hmm. mais lu la ci woo fànn googu. dinaa ci def ñaar mu fekkee ne korte muy sewalu yaram bi korte lu muy manifester ci nit tamit bëri na am na korte noo koy sànnee ci nit ki mun na ko dafay góom Eh, lu bëree bëri aussi mun na ko def loo xamante ni yàq yu yoo xamante yu méttee méttee lay doon mun na ko def loo xamante ne loo xam du nekk ak sagom loolu korte dina ko def mhm. mais loolu yëpp incha allah rabbi ci kattan borom tabarak taala loolu dinaa ci dafay ñaanu am solo mhm. bu fekkee ne loolu mu ngi wàllu korte daal dinaa koy dindi ci lu gaaw bu soobee borom incha allah balaa maa mhm. jeexal euh, pàcc boobu damay ñëw ci liñ naan noob lan moo waral nit ñi di noobante waaw waaw noob day euh, macha allah nit ñi de boo gisee noobante tamit Euh, loolu jamono gi moo xaw jaxasoo euh, léeg-léeg aussi noob am na fu mu baaxee parce que sa digganteeg sa soxna. Mhm. mun nga ci leen noob loo xamante mu déggal la. Mhm. loo ko wax daal mu topp ci yow soxna tamit seen diggante daaw nga def ci noob sa wàllu borom kër boo. ba daal euh, kenn du dugg seen diggante. loo ko mhm. wax aussi moo tax wala jafe-jafe bu fekkee dafay nekk seen diggante. Ah. def ci noob loo xamante dina gën a dëgëral seen diggante. Mhm. mais dafa am ñoo xamante noob dañ koy euh, dañ lay wax loo xamante daal euh, comme nga bëgg benn jigéen bu ko fooye naa la noobal ma diw nga koy jëfee. Mhm. mais bu fekkee ne ab farata moo nekk ci diggante bi loolu dinaa ci dafay liggéey am solo ci wàllu noob sa wàllu njaboot mun nga leen noob loo xam ne yow mi borom kër loo leen wax daal ñu déggal la parce que jamono gi dafa xaw a jaxasoo. Euh, ci jamono yu toll da nga yar doom keneen jóge fale ñëw yàqal ñàq yàq xelam mhm. mais loolu def ci ay mbir yoo xam te wala noob lay doon nga defal ko ñoom ñëpp ñu euh, lekk ci naan ci loo xamante daañu ñu mun nañ ne nekk benn parce que jamono yi comme ni mu ko waxee jamono gi daal dafa xaw a jaaxasoo trop trop incha allah mhm. wala soxna keneen jóge fale ñëw yàq seen diggante mhm. moo tax daal loolu def ci nopp ak wàllu kaarange loo xamante ne keneen bu jóge fale daal mhm. euh, bu bu ci jublu ci lu bon daal du la mën a dara incha allah nopp daal macha allah am na mbir yoo xam dinaa ko ci liggéey baax ba incha allah bëri ñoo xam dañu may soxla ci fànn googu daal incha allah muy wàllu nopp daal dégg nga di naan bëgg ko bàyyi loolu tamit dinaa ci dafa euh, wàllu dédale ci fànn googu euh, Eh, ñi nga xam ne dañuy tux wala naan sàngara wala nekk ci lu bon loo xamante ne nga yar say doom mu a indandool ci biti nekk ci lu bon di tux ak naan eh, loolu dinaa ci dafay dëddale daal macha allah ci fànn googu muy lu bon. Mhm. wala ngay dugal sa doom ci école muy dem dem ak a ñëw fekk nag ndekk muy ànd ak keneen koo xamante ne baaxut. Mhm. kooku mun a soppi say doom ci wàllu tux. mais loolu incha allah dinaa aussi di nga gis koo xam ne da nekk ci tux bu ko Eh, xelam yëpp nekk ci pour koo bàyyi mais du ko mën a bàyyi. Mhm. Eh, loolu fekkee ne am na volontaire incha allah pour bàyyi ko daal loolu dina am ay déddale yoo xam ne dinaa koy liggéey moo waral ma ne déddale. Mhm. dinaa koy liggéey daal incha allah mais ci fànn googu loo xamante sa njaboot bu nekkee ci lu bon. Mhm. Euh, loo xam ne baaxut kooku def ci déddale loolu moom yàlla bëgg na ko. waaw wala sa doom bu jigéen mooy topp koo xamante ne baaxul mm-hmm. baaxul euh, muy naan sangar wala leneen safaan mm-hmm. loolu nga bugg ko mu mu ko ginnaaw daal loolu naa ci def ñaan yu am solo incha allah mu waral ma ne déddal dinaa ci def ñaan mais fekkente ne aussi loo xam ne tooñ nit la nga bugg a déddal euh, moom wala soxna ak euh, borom këram mm-hmm. nga bugg a déddal ak ñoom te defuñ la dara loolu moom dama koy liggéey incha allah mais fekkee ne lépp daal dinaa koy li saaru pare lépp lu may dugg dama koy seet lisaar ku ma ko lisaaree xam lu ci nekk daal incha allah. Mhm. bu fekkee ne lu neex yàlla la dinaa ko liggéey mais fekkee ne loo xam ne neexul borom bi. Mhm. kooku duma ko jege daal incha allah. tarkal mhm. jërëjëf euh, sëñ Cissé ma jàll ci ñaareelu pàcc bi mu bokk ci ñaan dama ne ñaan nag dama jël ñett yoo xamante ni saa su nekk nit ñi dañ koy sàkku ndax soo ci amee benn bi di nga bëgg am ya des lii di bayre ak ubbeeku ak kaaraange bayre ubbeeku kaaraange. waaw comme ni nga ko waxee bëri na ñi nga xam ne. fànn goo dañ may soxla muy réew mi bitim réew bayre wàllu bayre ubbeeku euh, wàllu kaarange ñi nga xam ne ñu nekk ci wàllu njaay parce que jamono dafa bëri ay xàccoo mm-hmm. euh, yi dañoo bëri ku ci nekk daal da ngay bëgg client ñëw ci yaw mm-hmm. euh, xañ sa xañ sa morom mais loolu yëpp daal dinaa ci fay ñaan yoo xamante ne wallu xàcc la daal incha allah ci wàllu bayra ubbeeku mhm. ak wàllu kaaraange daal dégg nga mais mu fekkee ne wàllu sport wala nga ci loo yëngatu daal mhm. ci say wàllu yëngu-yëngu dinaa ci dafay bayra te dafay ànd ak kaaraange tamit mhm. parce que nit ki bi daal mun nga ut bayra tamit te dafoo ci kaaraange mu ñëw yàqal la aussi bayra boobu mu ñëw dugal la ci loo xamante ne léegi ni daa am bayra boo nga après mu ñu dugal ko ci loo xamante ne après da koy rëccu moo tax daal loolu yëpp daf ci kaaraange tam daf ci am solo trop trop incha allah rabbi mhm. mais bëri na ñoo xam ne ci seen wàllu liggéey daal dinaa ci def ay ay bayre daal incha allah mu boole ko kaaraange daal parce que mhm. kaaraange jamono gi na nga kaaraange si na nga sa bopp mhm. parce que jamono gi yàqante dafa bëri trop fu mu toll nii da ngay ànd ak nit euh, mu yéeneel safaan yow xamoo si dara waaw bu boobaa yow bu fekkee ne dafa kaara nga sa bopp daal incha allah. Mhm. Euh, loolu daal bu fekkee ne jël na beneen intention pour def la ko daal du la mën a dara parce que da nga ànd ak nit daal. Mhm. kon du ma ko waxee mu nga raw ko ci a mhm. euh, la kaaraange tamit dinaa ci liggéey liggéey yu am solo incha dugg ci sport yaatal du ma ne da damay jël lii di joueurs ak lii di mbër ñooñu ban euh, façon façon ñaan doo leen doon digtal ñu koy sàkku moom nga leen di defal wala nga dig digtal leen ko ñu wut ko. Mhm. waaw. ci fànn googu nga wax ne wàllu euh, mooy football bëre. Mhm. Euh, léeg-léeg nga gis koo xamante wàllu bëre nga gis ñuy def ci wàllu arène bi di def loo xamante ne lu bëree bëri fekk na loolu amul njëriñ li ngay liggéey. Mm. ci sa kër lay nekk daal incha allah. Euh, yow loolu mun mun na bañ a yegg bi. Hmm. mais loolu am nay secret yoo xamante ne. Hmm. kooku macha allah même ci wàllu football kooku basmala muy basmala bi nga gis nii. Hmm. kooku lu mu mënoon bëriwul mooy bismillahi rahmaani rahim. kooku bëri na ay secret yoo xamante ne waaye dinaa ko ci liggéey daal incha allah ci wàllu football. ñaari équipe yoo xam ne daal dañuy jëflante daal incha allah ci wàllu xëccoo. Euh, même aussi jëm ci leneen loo xamante daal mais wàllu xëccoo lay doon. kon concours. wàllu concours ci wàllu basma euh, secret boobu ci laa koy jëlee allah. allah mm-hmm. loolu moom yàqin la yalla dama koy def ma koy may lu bëri bëri incha allah ci ñu ma koy jëflante daal incha allah mooy euh, li nga wax noonu ci fànn googu daal incha allah mm-hmm. mm-hmm. aca dem ci voyage suñu xel dee dal mbirum papier di këyit nga xam ne balaa ngaa voyage nag di nga am këyit yu yemb waaye suñu nag dafa yaatu concours examen yi lépp mu ngi ci biir sànq yaa ngi koy junj loo ciy wax waaw waaw ci wallu voyage macha allah am na yoo xamante ne tamit euh, léeg-léeg bugg a voyage fekk warul voyager xel mi nekk ci mais fekkente ne man dama koy listaar ma ko listaar fekkee ne gis na baax na ci yow wàllu kayit boobu nga bëgg a déposé ba suñu borom dimbali ci incha allah mais fekkente ne tamit gis naa ci loo xamante ne safaan la boo demee euh, mun ci am yeneen jafe-jafe gën a metti dama dama la koy wax mais bu fekkente ne aussi gis naa loo xamante ne boo demee yàlla ubbi la daal dinaa dafay ñaan incha allah bu fekkee da ngay dem déposé yi ambassade kooku na mbir yoo xamante ne naa ko ci liggéey daal incha allah ci sa wàllu papier boobu suñu borom daal nangul la ci loolu moom ci xuleel kaafiroon laa koy jëlee incha allah secret boobu mu ngi ci biir loolu incha allah rabbi mhm. mais bu fekkente ne aussi am na ñoo xam ñu ngi foofu pour am kayit dafay am jafe-jafe ci ñoom wàllu kayit eh, te euh, boo nekkee bitim réew amoo kayit pour am liggéey dafay jafe ci yow euh, pour nga nekk sécurité dafay jafe ci yow mais bu fekkee am nga kayit daal loolu daal say mbir ci la gën a yombee daal incha allah beneen ñi nga xam ne dañ may soxla ci fànn googu ci wàllu papier daal ci incha allah rabbi Euh, pour yàlla yombalal seen mbir daal incha allah mm-hmm. léegi nga nekk fa say mbir dëgër trop trop déposé ba sonn pour mun a ñu mun laa nangu sawalu kayit mu jafe mm-hmm. trop trop mais am nay baat yoo xam ne ci biir alquraan karim ñu dellu ci alquran ñaan ci yàlla daal incha allah kooku daal yàlla dama ci may ndam yu bëree bëri ci fànn googu daal incha allah comme ni ko waxee macha allah. am na solo mm-hmm. jërëjëf sëñ Cissé kontaan nañ ci yow du fekkoon dafa am laaj yu ma la waroon a laaj te laaj yu ma la ko nga bëggoon koo complété yokk ko ci lan lay doon. waaw waaw comme ni nga ko alhamdulilah rabbil alamin Euh, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp incha allah mbokk taalibe yi baax ba incha allah comme sama numéro bi mooy benn numéro bi mooy 77 048 10 93 képp ku ma woo daal man ngay jot sama numéro sama man kenn doo jot kenn ku dul man incha allah mooy numéro bi 77 048 10 93 ma ngi nuyu ñëpp mbokk yi Sénégal Gambia euh, Casamance euh, ñëpp daal Guinée Bissau ma ngi nuyu ñëpp incha allah waa bitim réew ñëpp ci am yaakaar ci man. seen soxla di faju daal incha allah nañ delloo yëpp ci borom bi tabaraka taala dama wax ne lépp daal lu ma ñaan bu mhm. nangoo rek nañ ko delloo ci borom bi tabaraka taala mhm, mhm. bu wax naan siise keke léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay saa naan defal ma defal nga ma lii ak lii dama nañ ko delloo ci borom bi man mënuma dara lépp yàlla suñu borom lay ijaaba yàlla moo ko def ci nit mais bu ko bàkkoo wala léeg-léeg nga gis ni koo xam ne bu ñëwee ci yow da wax naan ñaari fan lay nangu wala ñetti fan man la man du ma nit ñooñu daal ki nga xamante lay wax ne ñaari fan wala ñetti fan tax ci place yàlla mhm. kooku moom dama koy wax kenn daal incha allah mais naa la wax nañ ñaan ci borom bi te am mhm. naa yàqeen ci wàllu alquran karim lépp ma jàngal daal samay maam samay eh, nijaay ñëpp jàngal ma ci loolu kooku moom macha allah am naa ci yàqeen bu wóoru mais dëgg moom la wax nit ki am na ñoo xam boo lay waxee dëgg dañ lay mhm. wax jox naa man na demal mais nag man moom dëgg la lay wax nit ki daal incha allah awaa te duma lekk dërëm nit ci wàll loo xamante ne euh, wax loo xam ne amul mhm. déedéet comme ni ko wax baɗi mbandinkoon mbaal be kontona baɗi mbe fanna fanna mbe baɗum mbe kontona taalibo ɓe mbe kontona ninka bo sénégal gambia e casamance guine bissau mbe baɗum mbe kontonna albaadi ma bijan alnalsan sotono minne mon numéro ti mon 77 048 10 93 mais min kan kumandi nan numéro ɓen walla rabbi na tarange solata lisaro la fanan bela ko mba liskar la ngaji be bije ninga min noje mba kelete inshallah ka to sai alama inshallah alfana sa duwa fayma albadi ma si se bijabi duwa kela badi man ko be be duwa kela fe fe fe be duniya kono baɗi on talibo be ɓe duwa kele be magi ñaran ñëpp mm. yalla defal sénégal mm. jàmm inchallah mm. yalla sutural ñëpp inchallah be képp ko am jafe-jafe suñ borom daal uh, nangul uh, faj ay aajom daal inchallah yalla may ñëpp wër yalla defal ñëpp jàmm inchallah ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam